chiffres, ça avoisine plus de conseil départemental, de 2014 à maintenant, diriger buñ ko dirige parce parce que amul couleur amul couleur amul amul amul parti et vous une décision Vous vous discuté une décision mais consensus le vote dafa obligatoire rek sinon toutes les décisions qu'on a prises devant vous les journalistes depuis 2014 ba léegi mënoon nañ ko bañ a wote parce que consensus maa ngi ñaan yàlla yàlla jàppale conseil bi encore mieux euh, couleur d'autres, euh, couleur du j'ai déjà annoncé la couleur la minorité doit dafa respecter majorité bi majorité dafa respecter minorité. si bi dama de tàllal sama tàllal euh, société civile suba loxo tàllal ñëpp loxo pour que ñu mën a développer département bi maa ngi ñaax conseil yi kon se cendre l'airain pour que ñu mën a ànd ensemble développer le département je ne suis d'aucun parti ci benn parti